boo tuddee rek xar ñun xaj nañ lay tuddee. gars yi damaa seetaan Yërim Seck démb. Yërim Seck ko mu mel ne nag xol ba jeexat na de dëgg la nag koo xay ne weer da nga daan encaissé nga toog 6 mois 7 mois yoo xay ne dërëm dugut sa compte boo xam da nga ay millions di dugut sa compte ci ay manipulation soo demee ba mënatu koo am kala ko tee am kooku sa ennemi numéro un mu lay bi président Diomaye ñëwee ak Ousmane sonkook léegi nag say mbir dafay yàqu yaa ak Badara Gajaga yéen ñaar seen mbir dafay yàqu. ak ma jambal jaaj ndax liggéey mësu leen a may xaalis manipulation sos kàcc moo leen daan may xaalis boo tax nga toog démb naan su Pastef gañee majorité bi crise dana fa am nit ñi den lekk ñax yow yaay lekk ñax yow mii yaay lekk ñax. Macky Sall gënoon a xaraam mënoo gënoon a bon Macky Sall gënoon a yëf yi sax a gënoon Macky sàll te booba nit ñi dunde woonu num ñax ñu nga doon dund bi fi Macky Sall nekk gënoon a bon fuuf te ñu doon dund barke Seydina Mohamed Yërim sekk bu dee bu gañee majorité bi den dundeem ñax waxul dëgg day kàcc ndax moom moo ne woon jomaay du bokk Sonko du bokk daan ne sondage yi génn kenn mënu koo gañe premier tour moom Cheikh Yérim Seck moo moom Yérim Seck rek kenn seexalu ko moom Yérim sekk waaw kenn seexalu ko dañ koy seexal ci manipulation rek yow li nga fi ana mosoo analyser luy dëgg Yérim sekk dong daara yi nga amal affaire sa fen yi jukki Pastef mooy gañe majorité assemblée nationale te senegal sénégalais duñ lekk ñax naam nag loolu nga ñu yéene waye barke cheikhul khadim yow yaay lek ñax ñun duñu lek ñax ñun duñu lek ñax mukk yow yaay lek ñax ndax yow yaay lo sa toroxtaan ni ta da nga da nga dal ci kawam da nga dal ci sa toroxtaan ni yow ndax da nga ndax yow yaay lo sa toroxtaan ni ta da nga da nga dal ci kawam da nga dal ci sa toroxtaan ni yow ndax da nga jakkar lo en face parce que xamoo liggey xamoo nu ñuy fii nga taxaw ne da ngay jaay dangay jaay sa action yëpp ci presse bi bàyyi peres dem tëdd sa kër jubbanti sa njaboot ba nga dee ba sa entre entre menacé wu nga départ ñëw sa mouvement xurdab bii bu fekkoon li ngay wax dëgg la mouvement bi ay nit nga ca doo ko yeesaat barki dem wut ñoo xay ne mosuñu caa bokk nga ne ñii laa àndal liggéey bi ña nga ko àndaloon daaw anañu ña nga àndaloon liggéey bi daawaate jéeg anamu mouvement bu am 10 ans ña ca bokkoon deux mille deux mille 2007 2010 2011 ana ñooñu mouvement bi rombut sol kat tisat akub kap te ñi nga naan yaa leen yilif yilifoo leen dimbaleel sénégalais yii li ngay wax dara du ci dëgg Ousmane Sonko dara raw ci saay raw la ci nga muñ te ngeen di sàcc alal askan di naan dara askan wi raakool bi président Ousmane Sonko sempi arrêtel munoo wax dara lu dugg ci nopp sénégalais yi parce que sénégalais yëpp conseillé nañ la ne yow doo wax ko tu dëgg ba pare Yérim sekk xam nga noo war a def sans nationalité dem tukki génn réew mi te xam ne réew mi mënatoo fee baax le yow ñu dee nga ñu yéene loo waxoon fii barki démb buñ doon rey quatre-vingt nangam pour cent yet dañ leen a rey état bi def li ba war a def tey nga taxawaat daan ne xar yi topp Sonko ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo tàmbalee topp euh, waaj yi ñun nga tuddee ay xar xanaa kon Amadou Ba daa am xaj yu ko topp benn ci yow Amadou Ba daa am xaj yu ko topp muy benn ci yow dangaa am leader muy Amadou Ba ñu am leader muy Ousmane Sonko boo ñu tuddee xar ñu tuddee la xaj xar am na ñeenti tànk waaye du naan deret du lekk yàpp yow nag ñaari tànk da ngay lekk yàpp da ngay naan deret boo tuddee rek xar ñun xaj na lay tuddee. gaa yi di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay da tey nag damaa bëgg a tontu benn naafeq bu jigéen bu ñu wax Maimouna Ndour Faye naafeq international mooy Maimouna Ndour Faye Maimouna Ndour Faye nag sama diggante ak moom mënta neex ndax dama xam ne naafeq la jaxasekat la manipulateur la bu taxawee naan Babacar Diop min jàpp seen bi mu nervi tiktokeur la. naan bu leen moytu leen la daloon Macky Sall ndax bi ñuy jàpp fii dañoo ramassé woon ay booy jàpp leen tëjal leen seen yoon nekku ci xaaloon yaa ngi ko doo ko wax Lamine Niass bi ñu koy jàpp fii may mënundur fa yaa ngi fi est-ce que waxoon nga Asura bi ñu koy jàpp fii yaa ngi fi woon est-ce que waxoon nga may léegi daal Asura moom di tiktokeur Lamine Niass di tiktokeur ah ñooñu du ñuy tiktokeur lan motax ñu ñaata influenceur la Macky Sall japp door leen ci kassa bi ñaata est ce que yow boobu wax nga ki da nga xam lu mu def ba nga ne du yoonam neeku ci da nga ko fekke yow dañ la war na woo nga wax ñi ci seen yoon nek kon parce que yow mën nga épargner boy bi ne yoonam neeku ci lim bok sam sa kàddu motax nga yi jëlal solal tubay su bokon Pastef do ko solal tubay chaque jour ñu jiñ fi patriote yi lo xam dara lu ci deug ngay appuyer ko nga naan ci la bokk Babacar Diop ci la bokk su ci bokkuloon duñ ko jàpp te man damay demandé ba tey encore nañ jàpp Barthélémy Dias nañ jàpp asan Diouf nañ jàpp euh, Djibril Fall nañ jàpp euh, ndaw si euh, borom ginaar yi Anta Babacar Ngom nañ ko jàpp nañ jàpp Bougane Gueye Dany man loolu laa loolu laa loolu laay insister man ci loolu laay insister. mboolem ku bokkoon ca karawaan ba kenn waru cee des ñëpp lañu war a jàpp dóor ci kaso bi. nga naan na ngeen moytu erreur ba dalal ñee dal leen yow erreur ba dalal ñee est-ce que mas ngaa toog na erreur la est-ce que mas ngaa toog may mun a fay na ñii erreur lan defoon bi fi mag Sall yi nekk xanaa di leen ragal seen ginnaaw yow koo mën a nax yow koo ne du sàcc sàcc la koo ne ku baax la ku bon la yow may mun a ndur fay yow may mun a fay Bougane Gueye Dany Pape Euh, Yirim Seck Jambal Jaañ ku ci wax dëgg yàlla sax ku ci yéen yow da ngaa mën a xam ku ci bokk ku ci bokkut léegi dañ laa na a bàyyi booy bi nag wóor na la comme que booy bi nee la bokku ci wax ñu ñu ci bokk ngaandaanaa ko seetaan tiktokeur la bul nu fontoo tiktokeur moom du du du liggéey da ngay fay sa téléphone def sa poos boo bëggee def sa ñaawteef def sa ñaawteef taalaat sa téléphone bul nu fontoo sa wax di dawul yaramu kenn te bis buñ ko baye barke sayidina muhammad nañ baye ñepp ñu ñibi comme ni ma leen ko waxe won dembu ci guddi ci devant Liberté 6 ci station bi devant Liberté 6 bi képp koo xam da ngay voté ji lu tambalé Kaolack jëm ñoro ba Porokhane mën nga ñew fofu bala auto yé départ 10 h lañ joxe heure bi waaw 10 h lañ joxe heure bi ku bëgg dem man nga woté ci numéro bi ma lay jox 77. 805 28 85 805 28 85 ku ci woote di nga jot di nga di nga jot ki nga xam ne moo yor oto yi kon gaa yi heure baa noonu numéro baa ngi noonu départ baa noonu kon gars yi ñëw leen Mame Pathé def na nam ko daan defee at mu jot incha allah suñ duggee ci élection rek noonu la koy doxalee.